nuyoo bi dañ ciy jiital Serigne Mountakha Mbacké bi ñaan suñu borom yàggal ko fi lool kattanal ko dëgëral ko wéral ko ba lépp li nga xam ne yeneen na ko ci liggéeyu sëriñ bi mu defee ko na ko bëggee ci barke borom Touba ngir gàttal nuyoo bi dañuy jëlaat lépp teg ko ci loxob Serigne Abibullahi Mbacké moom dana xam nu mu koy séddalee kenn ku nekk la yàlla ci moom mu jot li ko ci nuyoo nuyu bu baax a baax mbooleem ñi fi teew. waaye bu ñu waxee ñu fi teew dañ ci jiital képp koo xam ne bokk nga ci liggéey bii nga xam ne moo ñu fi dajale di Touba ci kanam mooy ñëpp tàmbalee ko ci ñi nga xam ne liggéey bi bi ñu ko wootee te ñu toll ci ñeenteelu at bi ñoo ci njëkk a si ñi ci njëkk si tàbbi ci di ci góor góorgóorlu di ci dox ba tax tey tax mu mu agsi fii ñooñu fu ñu mën a nekk ci biir réew mi rawatina waa bitim réew rawatina waa bitim réew ndax ku xam Touba Ca Kanam ak bitim réew danga xam ne war nañ leen a beral ab nuyoo ak ak kon ñooñu leen di nuyu ñoom ñëpp di leen sant di leen jaajëfal di santaat yàlla bu baax a baax dellu santaat Serigne Touba ci liggéey bi fi mu toll fi mu ne nii ci tolluwaay bii nga xam ne ci la ñu toll tolluwaayu tàmbalib liggéeyub defar mbedd bi Euh, dëkk bi liggéey bi defar yoon yi dëkk bi ginnaaw bi nga xamee ne amati nañ ci ndigal ci Serigne Mountakha ndax Touba ca kanam mooy kuréel goo xam ne li muy liggéey lépp Serigne Mountakha jox na ko ci ndigal laataa ma koy tàmbali waaye teewut fu ñu toll rek Serigne Abibou day àndaat ak mbooloo mi delluwaat ci moom yeesluwaat ndigal ndigal lu mujj lii bi ñu ko yeesluwaatee ba yëkkati liggéey bi woote ko ñun ñëpp maasa na gis ni mu demee kawe na jot bi ñu may wax ne dañ ñooy jox kàddu léegi kàddu dalal ak ubbi diis na ci man du mën a ñàkk a diis ndax fi liggéey bi toll la du mën a ñàkk a diis ndax nun fi nu toll la ak liggéey kon lépp dañ koy jël cant gi delloowaat ko delloowaat ko sëriñ bi sëriñ bi di wax rek ne Touba Ca Kanam a ngi nii biñ ko wootee dañ ne bëgg nañoo am ñaari millions yu weer wu dee kenn ku nekk ci ñoom joxew ñaari téeméer ñii man di am ñaari milliards par at ba par weer man di am ñaar fukki milliards ak ñeent par at loolu bi ñu ko tàmbalee léegi wax naa ko léegi ñoom ci ñeenteelu at bi fiñ ci toll boo ko doon xayma mooy téeméer bu ñu wut bu nekk ñoo ngi toll ci diggante juróom-ñaar ak juróom-benn genn wàll 6,5 pour cent jàpp 7 pour cent foofu lañ toll ci li ñu wut. mu mel na nag li xew fi mu ne nii ab soññee la li tamit. mën naa wane ak dalal xel ci ne lépp loo xam ne dëkk bi soxla na ko taalibe Serigne Touba bu ñu takkatoo mën nañ ko def ci anam gu yomb. ndax lu tax loolu mooy euh, bu ñu xoolee adduna bi ni ko suñu borom séddalee japonais yi suñu borom da leen jox technologie arab yi mu jox leen pétrole européens yi mu jox leen organisation ak tegum pexe ba mën a dund ci kaw nit ñi américains yi mu jox leen ak bennoo ñu créé état fédéral boo ñëwee ci Sénégal da ngay laaj lañ lañ lañu suñu borom defal. suñ borom dañoo jox Serigne Touba kon li nga xam ne lépp yàlla séddale na ko ci àdduna bi da ko dajale jox ko Serigne Touba li tax loolu mooy bu dee technologie bu dee pétrole bu dee organisation bu dee ak bennoo mooy li Serigne Touba doon jàngale mu tënk ci ñetti baat baat bi ci njëkk mooy yëg-yëg ba ca topp mooy pas-pas bu ñeenteel bi mooy yitte te mooy bu ñetteel bi mooy yitte ñetti baat yooyu mooy baat yi nga xam ne moo tënk yoon wi te mooy yi Touba ca kanam di doxee ci la ñu wootee liggéey bi biñ ko wootee ku nekk ci ñun da koo am yëg-yëg wuy si ko biñ ko yëgee wuy si ko pas-pas moo la ciy bàyyi waaye yitte nag moo tax nga sax loolu moo tax ñu ne jaayante bi ñooñu dërëm ñëpp ñi ci joxe waaye li ëpp solo mooy mu fexe ba nga xam ne kenn ku nekk ci mboolem taalibe yi da nga jël engagement da nga amuk dogu ci ne da nga sasoo nangam ca la nga man weeru dee nga matale mm-hmm. bu ko defee loolu dana tax bu ko defee loolu dana tax lépp loo xam ne ñoo ngi koy ñeewe ab dëkk fu mu mën a nekk ci àdduna bi moo xam borom pétrole la wala borom technologie wala borom leneen ñu mën ko indi dëkk Serigne Touba bi mu ne fi Serigne Touba amul morom ji ñuy wax dana jóge ci ay wax ci lu leer ci àdduna bépp jàll ci ay jëf ndax naka jekk mi ngi ci ay jëf waaye daa jot nag ñu gën ko yëkkati ba Serigne Touba amul morom jooju sës leer nañ ci ay jëf rawatina Touba ci kanam gi nga xam ne ñëpp bokk nañ ko kon ñuy wax ne bi biñ ko wootee dañoo seet ne mbedd yi nawet bi màggal gi mi ci biir nawet bi màggal gi mooy ndaje mi ëpp solo ci Afrique de l'Ouest wala ci adduna bi sax bu la neexee gannaaw Arabie Saoudite Makka te màggal gi bu ñëwee xat-xat lay doon ak jafe-jafe daaw ñu tàmbali ko def ci liggéey yu ama am solo biñ ko defee ren jii nag ne nañ ci teel a tàmbalee jublu ànd ak borom xam-xam yi ñu wàcc dem ci dëkk bi xool saytu jàngat daal di xayma ne. ci xayma bu ñu amee 350 millions xayma jëm koon natte ci tolluwaay bi ñu amoon waaye nag mu mel ne dañ cee sóoraale woon ne dañ am jaayante ñu ne kon nañ ca tàmbalee bi ñu wootee jaayante bi ci ndigalu sëriñ bi gis nañ ne liñ ci doon wut faw xanaa romb na loolu nag day joxe tegtal ci ne liggéey bu tàmbali la waaye du yamati ca nañ ko xalaatee woon ndax bu yokkoo dañuy yokk ci biir loolu na kon ci la ñuy wooyee bépp borom xam-xam bépp borom xam-xam borom xam-xam yi dañuy faral di wax ne liggéey yu mel nii ku koy tàmbali da ngaa war a def ay études euh, préliminaire jaarale ko fépp balaa ngay tàmbali waaye liggéey liggéey Touba kanam bii nga xam ne ñëpp nangu nañ organisation organisation bi ci nekk ñëpp nangu nañ transparence bi ci nekk biñ koy tàmbali amutoon étude te bu fekkonte ne dañ ko waroon a étudier def ko ci ay document teg ko doog a tàmbali kon nëg ni tàmbalee guñu kon ab liggéey ay coow murit liggéeyu sëriñ bi da nga naan bërëg départ ànd ak ña ngay àndal xam-xam ba ko ñu ànd di nos di liggéey di dem ñu ngi ci woo borom xam-xam yëpp ñu ñëw ànd ci liggéey bi jàpp ci ngir lu ñu bëgg ñu man koo am xam naa lu jël ci leeralub liggéey bi sëñ Abdoulahi Mbacke moom sëñ Dame Atta mi nga xam ne moom moo mooy coordonné projet bi dina ci dina ci dina ci gën a ñëw indi ci indi ci ay leeral waaye ñu bàyyi xel ci ne daal liggéey bi tey lay tàmbali jëm ba abadan fan yii nag bi ñu tàmbalee jaayante bi di defar ay affiche di ko publier am na ñennat ñu jàpp ne am na ñennat ñu jàpp ne loolu waruñ koo def ah kay lu tax ñu war koo def mooy joxe ñaar la kii joxe man naa nëbb kii joxe mën naa feeñal la muy joxe waaye la ca am solo mooy ab xolam jubluwaayu xolom lan moo ce ne loola mooy la am solo la ca toppat ci Touba ca kanam mooy Touba ca kanam day soññee ba Touba ca kanam tàmbalee ba tey képp ku mas a joxe lu mag siiwal nañ ko li ci topp mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon daan joxe ñaari téeméer mooy ñiy joxe tey jii di jaayante waaye mooy ñoo jiitu woon am nañ tawféex yu bëree bëri bi ci njëkk tawféex yi liggéey yu am solo yëpp ñaare buñ ko woowee buñ ko wootee ñu ñu jàpp ne ñoo xaw gën a néew doole ci wàllu am am ñoo cay jiitu te loolu feeñ na beneen bi ci topp tamit ñoom euh, mooy li alxuraan di wax ne ulaayika yusaarixuuna fil xayraati wa hum laha saabixuun mooy ñoom ñi nga xam ne ñoo jiitu ñoo njëkkante yiw wa te ñoom ñoo ñoo jiitu kon ñi joxe ñaar téeméer ñoom ñoo dalal tey ñi ñëw di jaayante ñoo leen dalal kon ki daan joxe ñaar téeméer bu mu jàpp ne mukk dañ koo ginnaawal ci lii ndax kat lu mën a xew jaayante am na solo mu ne suta lim ñi jaayante ñëpp ak pastef bañ ko jaaree waaye li ëpp solo nag moo ñu saxal pas-pasu weer wu dee danaa joxe nangam loolu mooy tax ñu man koo nos mooy tax ñu man koo organiser ba nga xam ne lépp lu ñu yéene ci dëkk bi dañ ko mën a liggéeyal sëriñ bi di jeexale nag kàddu yu cant jëme ko ci mbooleem waa Touba ca kanam ko bu ma ne waa Touba ca kanam gàll ci ñëpp teg ko ci loxob sëriñ Abibulahi Mbacke mii nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi sant bu baax a baax alaaji sëriñ Tàkku Mbacke sant sëriñ Abdoulahat Mbacke moom sëriñ Abibu bu ma leen limee sant bu baax di leen gërëm ndax kat ñoom ñooy kaaraange liggéey Touba ci kanam liggéey bi su mu àgg tey ba nga xam ne bi ñu doog a tàmbali njabootu Serigne gi ñi ci ëpp ci ñoom yëkkati woon nañ ci kàddu soññeeku loolu bu ko Touba ci kanam mënee am Serigne Abibou mi nekk ca bopp ba ànd ko ñi ma ko àndal moo nu ko may noo koy sant bu baax Mbàkke di ko jaajëfal di ko gërëm waaye di ko jégglu ci turu mbooloo mi yëpp di ko jégglu ñoom kilifa yi ci turu mbooloo mi ndax nun ay donga lañ bu ñu nag bu ñu mënee ànd ak ñoom ñu wàccee seeni daraja ba tolloog ñuy wax di ñu jox ñuy wax di leen delloo ci liggéey bu nu bokk dañ noo bëgg a dimbali waaye loolu waruñ ko woon a yaayoo ndax du nu suñuy nawle ci genn anam kon ñoo ngi leen di jégglu jamono bu nekk di leen dogal ngant di leen ñaanal wér gëram a gudd fan di sant ak jégglu waa Touba ca kanam yëpp di ñaanal ñëpp ndam di wax ne ñoo ngi wàccee foofu kaddu yi jot li kaddu gi jël li jëm ci kaddu yi cant yeeg ngërëm yi sëñ abi bu lañ koy lañ koy bàyyee mu jëm ci njabootu sëñ Touba gi ndax wa rahmatullah